wa ala alihi xaqa wa miqdaarihi al-azim gannaaw bu ñu àndee jàng atey njàpp jàng ay chartaam jàng ay farataam jàng ay sunnaam jàng ay mandubaatak mustahabbaatam jàng yeñ ci sib ak ya koy yàq suñu bëkkan dana sopp lool ñu wax ñu buñ bëggoona jàpp tey te bëgg dajale lépp luy chart lépp luy farata lépp luy sunna lépp luy mustahab te teet lépp loo xam ne luñ bañ la moo xam lu koy yàq walla luy wàññi yool ba nu ñuy jàppee in the most practical way gannaaw bu ñu mëtalee charte yi ci am ndox mu laab te mën a laabal nañu tàmbalee ci yéene soobu ci njàppale lu tax ñu tudd yéene fii moo di boroom xam-xam dafa am ñoo xam ne dañ ne yéene ji mi ngi waree ci njëlbeenu farata te njëlbeenu farata mooy raxas ñii ne njëlbeenu farata eh, mooy galax ndiku ndax ci kanam la bokk kon li gën a mucc mooy nga tàmbali tàmbale yéene ndax ñoom ñëpp d'accord nañ ne boo yéene ci tàmbali wér na kon nag nga def li nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci nga yéene yëgatik toj wala farataay njàpp maana farataak njàpp wala daganal loo xam ne luñ tere woon la ngirak ak toj yéene ji nag ci sa xol rek nga koy def doo ko wax doo nga tàmbali ne bismillah raxas sa ñaari loxo ba ci say tikku njara tikku njara mooy fi jigéen ñi daan takk seen njara yi xaw ma ñu koy takk ba léegi de ñu ngi koy takk waaw moom la arab di wax ko ñaari loxo yi ba ci tikku njara yi ñetti yoon gallax ndiku te mooy dugal ndox ci gémmiñ gi yëngal ko ñetti yoon sorax ndiku te mooy dugal ndox ci bakkan bi xëcc ko ñetti yoon fiiru te mooy jël sa ñaari baaraam teg ci sa bakkan daal di ko di ñand ndox ma te nga defee ko sa baaraami loxo càmmoñ ñetti yoon boo galax ñetti yoon sorax ndiku ñetti yoon fiiru ñetti yoon nga raxas sa kanam ñetti yoon mooy sa xar kanam bu dee boromub sikkim nga bu dee sikkiñ bu ndaw la fokk nga dugal say loxo ci karaw yi ba der ba bu dee sikkim bu mag la raxasal kanam gi ak li feeñ ci karaw gi waaye santuñ la nga toggoo xalil ngir sikkim bu tal jéggale nañ ci xalil ci njàpp bu doon ci sangu nag danga koy xalil gannaaw ga nga raxas sa loxo ndeyjoor dale ca weya ca cati baaraam ya ba ca conc ba ñetti yoon raxas sa loxo càmmoñ dalee ca weya ca cati baaraam ya ba ca conc ba ñetti yoon daal di masxa jëlum ndox masxa mooy fomp cest à doo raxas da ngay masxa lan sa bopp dalee ci jëwi wàcc ci ndong li muy masxaab farata bi nga dellusi mooy muy masxaab sunna masxa sa nopp yi daal di ca teg raxas tànkub ndeyjoor ba ci doojoor mooy alkaab mooy ñaari yax yooyu le nekk ci diggante lii sol ak yeel yi leen di raxas ñoom ñaar tànkub ndeyjoor am na xadis bu ñëw tudd ñetti yoon am na yu ko tuddut boo noppee nga raxas tànku càmmoñ ba ci doojoor su fekkee ne kii jàpp nag loxoom dafa dagg walla tànkam dagg ñu ne la des ca loxo ba wala la des ca tànk ba lay raxas yàlla bu yàlla dagg seen loxo yàlla bu seen tànk dagg lu tax fattaqullaha mustataatum lu tax ida amartukum bi amrin fatoo minhu mustataatum mbokk soo defee nga daal di yëgati sa bët nag mu jëm kaw nga daal di wax ñaan gi jógee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an laa ilaha illa allah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maa ngi seede ne yàlla rek yàlla moom kot kenn bokkut ak moom dara ci nguuram gi amul bokkaale wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu maa ngi seede ne muhammad jaamam la te ndawam daldi ne allahumma yow sama borom ijaal nii yal nang ma def allahumma yow yàlla ijaal nii yal nang ma def min attawaabiina ma bokk ci ñu ñi nga xam ne fuñ toll ñu ngi ni yal nang ma boole min almutatahirina ñi nga xam ne fuñ toll ñu ngi laab ñu ngi laabal seen bopp am ñu yem foofu am ñu ca yokk ñaan gi nga xam ne yonantu daan na ko tëjee ay jotaayam ak i waxtaanam subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yow sama borom yow rek yaa sell maa ngi laa sant di seede ne yow rek yàlla di sàkku sa njëggal di tuub yàllu ci yow lu tax ñaan gi <clears throat> euh, ñaan gi dafa am munasaba ak njàpp ndax njàpp <clears throat> laabuk biti la ñaan gi yaa ngi ñaan yàlla laabal sa biir ni nga xamee ne laabe nga laab nga ci biti nga bëgg sa biir laabe noonu biti ndox mee koy laabal biir nag tawxiit ak dellu ci yàlla moo koy laabal nga boole ñaari laab yépp laab nga ci biti set nga wecc ak ndox mi ndax ndox mi nga laab ci biir set nga wecc ndax tawxiid ak tuub dellu sa sa borom ñaar yooyu bu dajee rek nga set wecc léegi nag yéwén nga pour mën a taxaw ci sa kanam borom ndax ku laab rek fa war a taxaw pour mën a wax ak moom booy seeti buur bi nga gën a fonk kilifa gi nga gën a fonk na gën a rafet na gën a set ngay mel sama borom mooy buuru buur yi booy taxaw ci kanamam fu deeyaaleeg moom na gën a set na gën a rafet nga war a mel moo nga laab biir laab biti laab biti ci njàppali laab ci biir ndax eh, tawxid gi yaa am ko amee ci tawxid gi mbokk bokk na ci yi nga xam ne dafay mottali njàpp nga bàyyi ci xel li ñuy tuddee isbaaxul wudu mooy fexe ba cër yépp mat sëkk nga matale leen ak am ndox do bàyyi dara ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam gis na waaju jàpp bàyyi lu tol ni xufur ci ndogoom lu tol ni we yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ko dellul nga rafetal sa njàpp irji fa axsin wuduak fa axsin wuduaka lenn ci soxna yonentu sallallahu alayhi wasallam wax na yonentu dafa gis benn waay buy julli fekk am na diggante bu toll ni ab dërëm ci tànkam bu amul ndox yonentu ne ko dellul yonentu digal ko mu baamtu jàpp la ak julli ga daal di ne woylu lil aqaabi min annaar mu ngi ñuy bàyyiloo xel ci ne yooyu léeg-léeg dafay yomb ñu romb ko noonu rek te duñ leen tooyal muy barab yoru xëyeeg yi nga xam ne tabarakallahu dafa génn noonu yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wax na ne kenn ci yéen jullim du baax feek jotalul am njàppam ni ko ko sama borom ni ko ko yàlla digalee tabaraka wa taala jotalum njàpp nag firiwut baril ndox déedéet li muy mooy matal cër yi matal cër yi ci ndox waaye ndox mooy sotti muy ko rek kooku ak yàq la te yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere wér na ne daan na jàpp ci mudd di sangoo saa jëm ci juróomi mudd saa ñu ne mooy ñeenti mudd muddu boo ko doon xool ci wolof mooy ñeenti xas xas mooy li tenq bu fees dell ak ndox wala ñaari tenq yu fees dell ak ndox moom nga tubaab moom la arab bi di wax arbau xafanaat xafana xafanaat arbau xafanaat ñeenti xas ñu ne mooy mudd yonentu daan na ci jàpp soo ko multiplier par 4 daan na ci sangu farata wala daan na ci sangu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ñu ngi nuyoo bu baax di ziar ñëpp di jéggalu démb dañu newoon ci ab conférence moo tax tabarakallahu mënuñu woon a ñëw ci dërsu bi dañoo guddee xam naa daañ dellu si